بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها وعولت ميل قلبي للهديات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 saddid lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraa'i asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi sant yàlla borom bi tabaraka wa ni mu yellee ci jëmmam ji te as njaamam lottu ci lool di julli tey salmal ci sayidul kawnayni wa toqalayni wal fariqayni min orbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu pas ak suñu jaayante ci maam Serigne Touba Xaadimu Rasul di ñaanal jëwriñam ji nga xam ne moo fi nekk a Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko ba mottali mbooleem ay naalam nay naal di yeggale tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere ziyaara boobu ak nuyoo yooyu moom la ñuy jox a Cheikh si Sy Mansour moom mi nga xam ne moo amee jotaayu xadra malikiya boobu la ñuy jox it Cheikh Mahi ñas boobu la ñuy jox it Baye Cheikh Tidiane ñas ca Léona Niassène boobu it la ñuy jox Baye Assane Seck ca Canaba booba it la ñu yóbbu Njaasaan booba it la ñu jox maam Thierno Basir Taal boobu ziyaara akum nuyoo moom la ñuy jox mboolem ñi safoo saxoo di topp seen télé réew mi TV rawatina seen émission bi ñuy wax keppaaru mag ñi di am dimanche bu jot 22h jàpp minuit ngeen baaxoo ko ànd ak seen mbokk seen sëñ Baara Mbàkke euh, muy am fii ci télé réew mi TV waaye ngeen mën koo topp it ci euh, rajo réew mi FM 97.5. seen imission keppaaru mag ñi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne moo gën a sell ci nuyoo yi te gën cee yaatu mooy nuyoo bi nga xam ne moom la ñu yàlla boole nuyoo boobu mooy bi waa aljana di nuyoo te moo tàmbale ci jàmm te jeexee ci barke te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen émission keppaaru mag ñi ñi ngi nuyu mbooleem koo xam ne yaa ngi safoo saxoo di topp tele bi waaye di topp rajo bi ci mboolem seen i programme rawatina seen émission bi ñuy wax keppaaru mag ñi di ziyaare ñëpp fu ñu mën a nekk seen émission keppaaru mag ñi ni ngeen ko baaxoo amee dimanche bu jot ñëw di ci fàttaliku kenn ci suñuy mag ñan ñooy mag ñi mooy ñi nga xam ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam andi woon jëlee ko ci borom bi tabaraka wa taala bi mu fi bàyyi wax ñu ne balligu anni walaw aaya sahaaba yi bay ci seen waar taabi taabi yi bay ci seen waar ba suñu maam yi suñu mag ñi nga xam ne seen ginnaaw ginnaaw saxaaba yeeg taabia yi bi puso bi agsee ci ñoom ñoom di réeréewut ci ñoom mooy dañ cee bay seen waar li leen ci war lépp def nañ ko ba alhamdulillah fa tabaarakallah moo tax tey ñun ñu mën a judd ci diine ji waaye yaru ci diine ji waaye it suñu borom suturaal ñu ba mboolem lu ci mat a xam ñoom ñu bàyyee ñu ko ñu xamee ko ko seen émission keppaaru mag ñi suñ mag ñoo ñu lay ko di jàngat seeni dund waaye di jàngat seeni bind comme niñ ko baaxoo defee dimanche bu jot incha allahu taala tey noonu lañ ko fa yéenee defee seen émission keppaaru mag ñi tey ñu fas yéenee àndi kenn ci ñi nga xam ne man marqué nañ seen apprenti fii ci àdduna maanaam kenn ci ñi nga xam ne liggéeyal nañ lislaam liggéey boo xam ne buñ ko tegoo bindoon ciy téere mën naa doon gidd boo xam ne àdduna bépp mën nañ cee jariñoo waaye kenn ci ñi nga xam ne ci wetu Serigne Touba fi lañ amee yàlla waaye ci wetu Serigne Touba ci lañu amee àdduna waaye ci wetu Serigne Touba ci lañ amee ci lañ amee nit ñi te ñaari ngërëm wala boog ngërëmul yàlla képp koo xam ne am nga ko mën naa ne am nga àdduna am nga àllaaxira te nag ki moo ki ñuy bëgg a waxtaanee ci Serigne Touba la jaaree amee ci ngërëmal yàlla mooy kan mooy maam borom Daarul Muxti yi ngir ni su saxabaan bi nga xam ne moom la gisee woon ak Serigne Touba nga xam ne bi Serigne Touba di tukki tukkim boobu. dénk ko ay responsabilité yu rëy rëy rëy ak garantie ak sacrifice ya nga xam ne def na ko ci bi Serigne tubaa dellu see mu war a gisee ak moom war koo rendre compte mu doon su saxabaat boobu nga xam ne ci la gisee woon muy bis bi nga xam ne ci lañ koy fàttaliku moom maam borom Daarul Muxti yi tey moom lañ fas yéenee fàttaliku ngir liggéeyam ak jaar-jaaram yi nga xam ne liggéeyal na ko yàlla waaye jaaree ko ci buntub Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñi ngi ciy ànd nag suñu wëyjur suñu sëriñ Serigne Modou Mbacké moom Baye Abbas Mbacke mi nga xam ne kenn la ci njabootu maam borom Daarul Muxti yi xam naa ni dañ koy jox moom sëñ Modou mu daal di nuyoo incha allahu taala ñu daal di door a dikk ci waxtaan wi incha allahu taala ngir fàttaliku kooku nga xam ne moom lañ fas yéenee waxtaanee muy maam borom Daarul Muxti yi sëñ Modou fal tatafaddal mashkura. aoudu billahi min achaytani rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wa salli ya muxsi salaatan taalu kulla salaatin bi salaamin yaalu ala nabiyi almuntaxa almushafaai wal ali wa saxbi wa xidmati lfaai rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jacal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Bara maa ngi lay delloo am nuyoo di la ziar di la ndokkeel bu baax jërëjëf di am mbégte bu baax ci bokkal ak yow jataay bi jërëjëf tey nuyu mboolem ñi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ci réew mi ci bitim réew mhm. télé bi di réew mi TV mhm. fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar mhm. di am mbégte bu baax nag ñëw fi tey bokk kook suñ mbokk suñu xarit suñ baara hmm. ngir ni mu ko waxtaane fàttaliku hmm. mag ñi fi jaaroon hmm. ngir ñu mën ca jariñu ci seenu dund kon ñu ngi lay ziar bu baax baarakallah baarakallah jërëjëf baarakallah sëñ Moodu Mbàkke moom sëriñ Abbas noonu it la ñuy yëkkatee nuyoo akub ziyaara di ko jaarale ci suñu maam sëñ Basiiru Anta Ñaŋ mi nga xam ne moo amee tey jataayu a Cheikh Ibrahima Faati borom daarul Muxti ñoo ngi koy ziyaara bu baax a baax di ziyaar yi mbooleem jabootug maam borom daaru gi nag waaye di beral ab ziyaara it maam Thierno sëriñ maam Thierno moom sëriñ Basiiru am tañang sama nijaay la maa ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax a baax di ziyaar yi mboolem njabootu maam borom Daaru Muxti yépp rek bàyyi wuñ kenn ci noonu la ñuy ziyaar yi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa maam borom Saam di ziyaar yi sëriñ Cheikh Tedd Mbacke xalifa sëñ Baara Xuréja mboolem waa Saamuk sëñ Baara Xuréja ñu ngi ziyaara ñëpp ñoom ñuy ñuy safoo di saxoo di topp émission bi di keppaaru mag ñi la ñoo ngi leen di ziyaara bu baax a baax fu ñu mën a nekk di yëg beral am nuyu ak ziyaara nag borom kër gi alxaaji Mbagnick Diop peccum liir bu neexee day jaa jàpp ca wagg ya liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene liggéeyal lislaam ki jàpp ci suñuy wagg bañ man koo jottali adduna bi mën cee jot kooku it fu ñu toll dañ koy fàttaliku ci ñaan di ko ñaanal mbooleem ay projet am waaye mbooleem li nga xam ne am na yéene liggéeyal ko société bi ñu ngi ñaan suñu borom mu mottali ko incha allah mbàkki ñoo ngi sàkku it ci yéen ngeen ñaanal ko incha allahu taala di ko ñaanal it ki nga xam ne moo jiite liggéey bi alhaaji Moustapha maa ngi maa ngi ziyaare it mboolem koo xam ne ñoo bokk nekk ci kër gi euh, moo xam réew mi quotidien la moo xam réew mi TV moo xam réew mi FM moo xam euh, réew mi officiel la fu ci mën a doon rek ñu ngi ziyaara ñëpp ci ci gën a kawe ba ci man mi ci gën a xeebu alxaaji Malick Guèye ak ñi mu àndal euh, xarala gi ñoom ñoo jàppandal bañ mën a too bañ mën a dégg suñuy kàddu sëñ Modou ñoo ginnaaw bi ñu la nuyoo ziyaara la hmm. ziyaar yi mboolem waa moo Muxti tey ñu fas yéenee waxtaani Cheikh Ibrahima Fati Cheikh Ibrahima Fati ca tur wi mu gën a siiwee sax mooy ndaamal daarul moxti ndaamal ndaamal daaru mooy ndaamala woon ca daarul moxti yi ca bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko sëñ Tuubaa waaye xam ngeen ne euh, am bokk yu baax gaan ga la ci baax mhm. yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ko sunu borom bëggee yónni daf ko tànnal aw askan mhm. noonu it lañ xamee ne ña jiitu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la ko dalee ca euh, maam aadama ba ci noox ci yàlla noox ba ci seydina ibrahim ba ci aleyhi salaatu wasalaam ba ci suñu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi mujj kum ci mën a doon suñu borom bu la nammee bu la nammee fàggul ab cër mm-hmm. ci ay wéy juróom la koy tàmbalee wala ci ay maamam la koy tàmbalee loolu tax Cheikh Ibrahima Faati it ñu bëggoon a xam moom fan la ko suñu borom jaarale ci ay bokk waaye kañ la gane àdduna ak fan la gane àdduna ak kan lañ ko tuddee mm-hmm. bismillah sëñ Baara maa ngi lay nuyuwaat bu baax. di ndokkeel bu baax sëñ Mouhamadul Bachir. Mhm. ibnu Cheikh Ibra Fati. Mhm. ak mbooleem waa daaru yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci mhm. weer wu tedd wi ñu nekk. ni nga ko waxee muy weer wu am solo. weer woo xam ne bu dul màggal daaru gi rek weer wu rëy la ci lislaam. dëgg la muy Chaabaan. xam ne yu bari da cee xew sallallahu alayhi wa sallam weer wi la ëpp. lu muy woor salaatu wasalaam. soxna da koo laaj ne ko damaa gis ne weer yi li ngay woor ci Chaabaan doo ko woor ci yeneen weer mu ne ko Chaabaan ci guddi fukki fan ak yi juróom mhm. ci la ñuy gaaral jëfi jaam ñi mhm. seen borom ma bëgg bu ñuy gaaral sama jëf fekk ma amee mhm. kon weer wu mu fonkoon danaan wax ne rajab shahrullahi a shahri ramadan shahru ummati barakallah te ci weer wi di Chaabaan ci la li ñuy wax taxwilul qibla am ci lañ wëlbati taxwilul qibla waaw ci lañ bi julli di ca bu njëkkoon dañ doon jublu Quds Quds Palestine Baytul yàlla da ngay dégg mu wax ne qad nara taqalluba wajhika fi sama mhm. nu walli yannaka qiblatan tardaha mhm. ci guddi gii nag la la ne ko fa walli wajhaka shatra almasjidil haram mhm. kon guddi gu gu barkeel la guddi goo xam ne fiiha yufraxu kullu amrin hakim wallaay ndeysaan kon ñu ngi ciy ndokkeel jullit yëpp ci ndokkeel waa daaru yëpp ñu war moom Ceerno Birahim it ndax wax nañ ne dafa mas a ñëw ci sëñ bi sëñ bi ne ko daa am lu ma la doon sàkkul ci sa borom ci weeru Shaaban wi ba mu yéex a antu lool ba ma defee ne da koo nanguwul. Mhm. waaye ci weeru Saxbaan bii la ko nangu. ndeysaan te loolu bu amoon. Mhm. say noonu ñëpp danañ bëgg. baarakallah kon weer wii. baarakallah weeram la. weeram la moos kon ñu ngi ciy ndokkeel waa Daaru Muxti yëpp. baarakallah baarakallah am na solo lool am na solo daaru nag. Mhm. ñu ngi ab ganeem jamonoom. ak ay way juróom. ndax loolu day lu am solo. sallallahu alayhi wa sallam daa am ku ko doon tagg wax ne qad fuqtahum zamanan mhm. wa fuqtahum adaban wa fuqtahum xasaban wa fuqtahum walada la ilaha illallah <laughs> kon ay waajur yu am solo la <laughs> uh-huh. Uh-huh. sëñ Yoro Fati uh-huh. way juróom mooy sëñ Mor Anta Sali sëñ Bàkke Mor Anta Sali xaadi Bàkke Mor Anta Sali boroom xam-xam bu rëy boobu sëñ Mor Anta Sali dama jàpp ne ku ñu war a waxtaane la ndax damay jàng bërki dem way yu ko sëñ Tuubaa way ci niveau xam-xam bi bi mu amee woon nga xam moom moo jàngal sëñ bi lépp dëgg barakallah moo ko jàngal lépp mhm. kooku mooy way juróom di doomi Mame Balla Aïcha mhm. mi ngi judd 1820 1820 la judd ci Mbacké mhm. di doomi Mame Balla Aïcha Mame Balla Aïcha di caatu Mame Maharam Mbacké kooku mooy way juróom bu góor barakallah way juróom bu jigéen di soxna Faati Isa Diop bokk waa Kokki Faati Isa Njaga Isaa ko jur. Hmm. Modou Faa Xuja Matar Ndumbe. Matar Ndumbe. waaw <laughs> kon sëñ kokki sëñ kokki Njaga Isaa mooy. sëñ kokki Njaga Isaa Modou ne Mbàkke la ak kokki. Mbàkke kokki. Hmm. ñoo ko ñoo ko ñoo ko kii. ñoo ko meññi moomu am na ñu mbokkal. Hmm. ñu ko wax Aminta Njaga. Aminta Njaga. Aminta Ndiaga mm-hmm. moom soxna Fatou Issa ñoo bokk lépp Aminta Ndiaga moom moo jur ki ñuy wax Makhtar Samb te mu nekkoon ak maam Thierno Ibrahima ah, sëñ Makhtar Samb mi ngay dégg waaw waaw moo jur it soxna Fatou Samba soxna Fatou Samba Samba moom lañ joxoon sëñ mm-hmm. am ca soxna Assou Mbacké Kajoor moom mi waaw waaw waaw ndeysaan waaw waaw waaw ndeysaan waaw la feeñ soxna mm. su Mbàkke Kajoor ku sëñ bi fonkoon soxna si Mbàkke Kajoor waaw ndeysaan soxna Faati Sàmba moom Njaga Isa moom Aminta Njaga mi bokk ak maam Faati Isa soxna Faati soxna Kajoor mooy wajuru sëñ Abdou Lahad waaw mu ngoog mu sëñ Ahmadou Fari matam sëñ Aafiya Mbàkke mu mu ngoog barakallah mm-hmm. soxna Faati Sàmba moomu nag. Mhm. mooy way juróom. mooy mooy way juru soxna Asu Mbàkke Kajoor. baarakallah. soxna Aminta Njaga mi bokk ak maam Faati Isa lépp. baarakallah. mooy mooy mooy way juróom. da baarakallah. soxna Asu Mbàkke Kajoor moomu sax ñaari sët yi njëkk yi sëñ bi njëkk a gis. Mhm. ci moom lañ jógee ndax moom. Mhm. moom kenn ki mille neuf cent ki ci des mille neuf cent quatre. la ilaha illallah. baarakallah kon kooku mooy soxna Faati Isa Diop. baarakallah baarakallah maam Thierno da ngay Mhm. ak Mbacke. Koke ak Mbacke. Mhm. ay boo ñëwee ba tey da gis ne maam Thierno it am na ñu mu bokkal. Mhm. soxna ak sëñ Mor Anta Sali. muy kenn ku góor ak ñaar ñu jigéen. ah ndeysaan muy Ahmadou Dame Fati. sëñ Ahmadou Dame moom la tudd sëñ Dame Fati. ah ndeysaan waaw sëñ Dame Fati waaw. way juru sëñ maam Thierno ak sëñ Aydara. waaw sëñ Aydara ndeysaan. rakkam rakkam la ko maam Thierno tuddee. ah ndeysaan na ñaar ñu jigéen ñu mu bokkal ñuy wax soxna Faati Bintu. ak soxna Aminta Mbacke. ak soxna Aminta Mbacke. soxna Faati Bintu moom la joxoon sëñ Mandumbe Hmm. moom ci sëñ Modou Xaban hmm. ak soxna Faati Ndumbe hmm, soxna Aminta Mbàkke moom lañ joxoon sëñ Daam Abdourahmane Lo mu am ci soxna Aminta Lo ak soxna Astu Lo ak soxna Faati Lo seetal loolu ñoom ñett ñooñu wax nañ sëñ bi da leen a woo ca Jolof bañ ñëw ñoom ñett ñu toog mu ne leen dama leen a gëj a gis ana ko ci mag soxna Aminta Lo ne ko man mu ne nañ ko jox sëñ Modou Moustapha mu am ca sëñ Mbàkke Madina ak soxna Mariam la ilaha illallah seetal loolu mu ne ko ci topp. Mm-hmm. soxna Astu ne ko man. mu mm-hmm. ne nañ ko jox sëñ Fallou mu am ci soxna benn Fallou. soxna benn Fallou. Mm-hmm. mu ne ko ci mu ne soxna Fatilou mu ne nañ ko jox sëñ Amar Fall Mbacke. sëñ Amar Fall Mbacke mu sëñ Mbacke Kajoor mu Mbacke Kajoor. barakallah <laughs> barakallah. waaw barakallah. kon loolu mooy. ñim ñim ñim ñim ñim ñim ñim. mooy ñi mu bokkal ñi mu bokkal waajur. Mm, sëñ Mor Anta Sali. soxna Faati Isa. kañ la gane àdduna. mi gane àdduna ci Poroxaan. ci mhm. ci li gën a siiw 1866. am na ñu ne 1865 waaye. Mhm. xam nga sëñ Moussa Ka ne waxtu ba muy juddu la soxyee takk loola waral jàmbaar ga maa ko bakk. Mhm. la ilaha illallah. xam nga maba bi muy bi muy bi muy xeex Paoskoto. dafa ñëw Mbàkke. ngir yóbbu ma Balla Aïcha. waaw Mame Balla Aïcha xamal ko ne damaa màgge. boole ko sëñ Mor Anta Sali. Mor Anta nag fabu. moom njaboot gi yëpp. dëgg la dem Saloum mm-hmm. ca Porokhane mm-hmm. xeex boobu dañoo wax ne 30 octobre 1865 la 65 la 66 te ci munaasa boobu ci la ci la gane àdduna ci la bane barakallah waaw Pate mm-hmm. Badiane kon 1866 mooy li gën a lëng mooy li gën a lëng al arjax waaw ci la ci la feeñ ci Porokhane barakallah way juróom tudde ko Cerno Ibrahima Kane Cerno Ibrahima Kane Cerno Ibrahima Kane moom waliyu tukulóor bu mag la woon boo demee ci Nubza Mubaraka bu sëñ Mat Lamin Jóob Dagana sëñ bi mi ngi ko ciy nettali benn xissa mhm. ba mu àggee ba ci Ibrahima mhm. mhm. bi lool ndeysaan daawul nangu mu génn daa fiir ci moom ba sëñ bi sax mujjoon ne moom moom lii lan la dal lu tax ndeysaan ma ko tàgg mu bañ lu ma ko wax mu ne leneen nee na benn bis nag Ibrahima moomu dafaa ñëw bi mu waxee Ibrahima dañu moom la tudde doomam ji ñuy wax Ibra a Fati. Ibrahima a waaw dañu dafa ñëw seet si ko. Mm-hmm. bi mu ñëwee ba yeewi ko nee na boobu mbooloo mu bari la àndal. Mm-hmm. bi mu yeewi ko bi ñu ñëwee ba tolloog néeg bi sëñ Tuubaa dëkki woon ci kër sëñ Moroon Sali. Mm-hmm. sëñ a mu ne ko moom mu dem fenn. ñëpp danañ dem waaye moom du dem waggar ko tax na nanguwuma. wallaay ndeysaan mm-hmm. mooy ñu xëri woon ci sëñ bi rek. waaw sëñ bi eh. nee na ngi ci néeg bi di leen dégg. Eh. mu ne ko anam mu ne ko fii mooy néegam waaye moom daa baaxoo nekk ci àll bi di wéetal boromam. ndeysaan. nee na lépp maa ngi leen dégg. Mm-hmm. nee na Cerno Ibrahim moomu jublu néeg bi di jàng di jàng di sari ba yàgg mu ne ko li nga ci bëgg lépp da ko ci am. alhamdulilah rabbil aalamiin ci laa xam ne ndeke suñu waroon seli lii bëgg gu ëpp la ci man waaye waaye du fiiraay ndeysaan ndeysaan baarakallah du leneen baarakallah baarakallah kooku noonu la ko hmm. sëñ Mor Anta Sali tudde baarakallah am na solo wirdul xaadir moom <laughs> moom Thierno Ibrahima Kane baarakallah am na solo am na solo macha allah hmm. sëñ Modou Mbacke moom Baye Abbas moom maam borom Daaril Muxti moom la ñu àndal ci seen émission keppaaru mag ñi gis ngeen ni ñu xamlee borom Daaril Muxti dafa daf maanaam waxin wi waxin wi maanaam dafa dafa simple te dafa leer te dafa am solo mhm. mooy que ni euh, li muy li ni nga ko tënkee ci ne xam nañ kañ la gane àdduna 65 mhm. 66 mhm. xam nañ fu mu gane àdduna Poroxaan xam nañ ñen ñooy ay way juróom Xaadi ma Anta Sali ak Soxna Faati Isa diggante kokki ak Mbàkke la Dàmbe ñim bokkal xam nañ ko <laughs> loolu maanaam ci waxin wi ci ni nga ko tënkee dafa am solo loolu baarakallah yàlla yàlla fay la ginnaaw bi nga xamee ne maam borom daarul moxti yi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali mooy woy juróom olof yi kat dañuy wax ne lu juddoo mu tàgg bu naawut jaaxali bokkam mhm. baayam xaada yi lañ ko doon wax mhm. kon dañuy xam ne ko ki ñuy waxtaanee dañ ci daal di mën a xam ne rek ki ñuy waxtaanee moom borom xam-xam rek la mën a mm-hmm. fan la jàng fan la jaar ci wàllu xam-xam wàllu mm-hmm. jàng ak lan la mm-hmm. réalisé ci wàllu xam-xam ak ndax bind na. xam naa damay njëkkanteeg waxtu wi rek. <laughs> ngir ma boole question yooyu. borom xam-xam bu rëy la woon. <laughs> in odda lil ulama wal kurama nuzara fa ma tuaddu lahu min baynihim nuzara. ku wax lii. sëñ sëñ Ibrahima Diop Machar yi. la ilaha illallah baarakallah moo ko wax maam ci xam-xamam bu <laughs> ak na ci wax ne iza takallama abda lil wara duraran ah. wa in bada wajhu abda lahum qamara la ilaha illa allah kon ku yaatu woon xam-xam am na benn hmm. taalibeem bu ko doon way sëñ hmm. Omar Sey day hmm. dàkkantale nibra su njàmbur nibra su njàmbur <laughs> <laughs> dafa wax ne huwa cheikh <laughs> eh. ma fi lxalqi bil ilmi wa tuqa eh. nadirun lahu faaxal xalaiqi bil amu ci ndend waaw nadirun lahu ah. wallaay xam-xam bu rëy la woon barakallah sëñ Tuubaa ko jàngal sëñ Tuubaa ko jàngal. dañoo mhm. wax ne sëñ moog sëñ gaawaan. Mhm. am Cheikh Anta. Mhm. a boole jox ku ñuy wax Serigne Ñang. Serigne Ñang. mu jàngal leen alquran. waaye diir bu gàtt lañ fa def. ñii ne nañ at ñii mu jël ko jëbbal ko sëñ Tuubaa. baarakallah ko alquran. ba mu wattu ko wattiin wu yéeme nangu naa ci kàddu sëñ Abbas. mu ne moom maam Thierno mas nay tari sëñ bi alquran. commencé ca Baqara. ba àggal mhm. sëñ bi ne ko ni nga ko taree ne lañ ko bind ca lawhul mahfuz laa ilaha illa allah barakallah barakallah loolu moom firnde la ci ak mokkal noonu la wata woon alxuraan barakallah mhm. sëñ bee ko jàngal xam-xam barakallah lépp moo ko jàngal bambaa ko jàngal alquran ak xam-xam mhm. jàngal liggéey la boole woon ba am ndam barakallah sëñ Musaa Ka ko wax barakallah kon sëñ Tuubaa ko jàngal alquran sëñ Tuubaa ko jàngal xam-xam moo ko jàngal xam-xam wax nañ ne génn diir bu gàtt rek sëñ bi am ci ñu ko yebal mm-hmm. waaye li lay xam ne booba géej la mm-hmm. ba muy dem way yem way way yem yóbbaale mm-hmm. yebal na ko ci ku ñuy wax a Baraama Jaxate sëñ Mor Baraama Jaxate waaw ngir mu jàngal ko ne moo ko jàngal ba muy dem way na way yu yéeme yóbbaale fa barakallah ginnaaw bi yebal na ko ci xaadi ma jaxate kala waaw bay xaadi waaw ngir mu jàngal ko aslëf ci luga barakallah wàllu balaax ak ëdëb ak yu ni demee waaye fa tuuti ci bi waaye daal sëñ Tuubaa ko jàngal léppi xam-xam moo ko jàngalit alquran mooy ibrahima alladi lam yu xaalif ni fii sigaarihi wala fii kibarihi baarakallah basula <laughs> fanaan àll du mm. génn daraja day mm. xiifa kay rafle ba xëy am daraja laa ilaha illa allah noonu la noonu la noon la taxawoon ak bi ba sëriñ bi defar ko nag ba mu doon kuuyal xam-xam lu mag a mag. Mhm. mu samp ko nag. Mhm. def ko muy ab ab ab ab jàngalekat. baarakallah baarakallah. nga xam ne mhm. diir boobu bépp. ci gàttal taqalikoo feeg sëñ bi. benn yoon mos taqalikoo sëñ bi daal. bi ñuy nekk Poroxaan. bi ku sëñ Mor Anta Sali jébbalee. ba bi ñuy nekk Paatar. ba bi ñuy ñëw Mbakke Kajoor. bi ñuy dem Daaru Salaam. Mbakke Bari Jolof. ba ni sëñ bi demee ci géej gi ba ni sëñ bi dellusee. musuñoo taqalikoo musuñoo taqalikoo mm-hmm. buy dem mu yor satalaga ak deram ba ak téere ba ak daaje di saf laram ba wallaay la noonu la mm-hmm. ànde woon ak ànde woon ak sëñ bi mm-hmm. ci waxtu yëpp nga xam ne keroog bi bi di yeesali wirdu xaadir wirdu xaadir jël wirdu xaadir ci maam askamara maam askamara waaw ci ndar la moom la àndal ndeysaan boobu boobu boobu du mag lool boobu lool ndeysaan sëriñ bi am na benn naar bu ko lebaloon ab téere mu war ko caa jox. ñetti hmm. ñetti dërëm. ñetti dërëm waaw. Hmm. Hmm. keroog bi mu waxtu fay wa jege see te nekku fa. bi ñu ah. wër réew mi. Ah. maam Thierno moom la àndal ak sëñ sambu Diop Samb. waaw léegi sëñ Moussa Ka di wax ne wër nañ Kajoor ak Bawol Njàmbur ngir bëgg am ñetti dërëm fay jàmbur. wallaay ndeysaan. waaye yàlla atte amuñu ko. dégg nga sëñ Moussa Ka di wax ne Cheikh Bamba naa maam maam Thierno naa Cheikh Bamba ñi ngi nuy reetaan. Ah. naa duñ fay bor ba ko yalwaan. sa lay ndeysaan Mm-hmm. moom da ko tax mu takkaat ak laxasaayam ni ñetti dërëm yi moom. moom da faaw da koy yalwaan moom doonte dañ koy yalwaan it moom dana ko fay. yàlla artiste way juróom soxna Fatou Issa. soxna Fatou Issa waaw ndeysaan jël ñetti dërëm jox ko. moom mu jëfandikoo Sëñ Tuubaa addiya mu mu mu mu fay ko. mu a bor boobu waaye li ma bëgg wax foofu rek mooy. Mm-hmm. li sëñ bi wax ni Ibrahima allazi. Mm-hmm. lam yufaariqnii. fi sigharihi wala fi kibarihi taqaliku wut ak man mm-hmm. ci ak ndawam ba ci ak mm-hmm. magam mm-hmm. am na benn leetar dane lam yu xaalif nii mooy mus sa juuyoo ak man amul lenn loo xam ne nii laa koy defee mu koy defee nii wallaay ndeysaan baayaata xayra xadimin waqtadayta bihi qawli wal fi'li xata xusta bushraahu ndeysaan sëñ maxtaar bintaloo sëñ maxtaar bintaloo bintaloo wax waaw ndeysaan yibra fatil imaamu xawtun shabihun li axihi fi wasfihi wasfaati baarakallah bu ko wax loolu tol rek day mm-hmm. roy sëñ bi di ko di ko li li ñuy wax ne mm-hmm. nangam rek lay topp mm-hmm. moom moom sëñ bi rek la doon topp loolu lu am solo la baarakallah nit ñi dañ ko xaw a kafe waaye nit ku nekk war naa am koy topp war naa am koy topp dëgg la waaye ka ngay topp nag daa war a doon kuuyul diine di wallaay wallaay ataatum basharan mislakum innakum isan la xaasiroon wallaay ndeysaan ku mel ne yéen rek mu mu eh. sànq leen. dafa kullu xariinin bil muqaarin yaqtadi yaqtadi. <laughs> yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci alquran. dafa wax ne in kuntum tuhibbuuna allaha. Mm. fattabi'uuni wallaay de bu ngeen bëggee yàlla bëgg leen rek topp leen. Mm. fattabi'uuni wallaay de bu ngeen ma toppee lu ngeen cay amee mu ne mm. yuhbibkumullah yuhbibkumullah wa yaghfir lakum <laughs> dunuubakum wallaay de parce que allah wallaay de kon noonu la taxawoon ak Sëriñ Tuubaa topp. baarakallah daanaka sax question bi ma ciy bëgg a teg. Mm-hmm. dugg nañ ci. mooy dama doon laaj Cheikh Ibrahima Faty fan la jaar ci wàllu jàng mhm. waaye jaxasoo gi mu jaxasoo sëriñ bi mhm. moo tax wetam goo dugg rek mhm. ci sëriñ bi ngay tàmbali ci sëriñ bi ngay yem damaa seetlu même bi mu duggee ci wàllu askan ci sëriñ bi nga tàmbali ci sëriñ bi ngay yem ndax sëriñ bi moo woo Euh, moo ñaar ñi nga xam ne ñoom la bokkal wajur wu jigéen mm-hmm. sëriñ bi ci boppam moo leen joxe seeni njaboot it sëriñ bi moo leen joxe moom Cheikh Ibrahima Faty it sëriñ bee ko yar sëriñ bee ko jàngal mm-hmm. mooy li ma lay wax léegi damaa laaj fan la jaar ci wàllu xam-xam mm-hmm. nga ne ma sëriñ bee ko jàngal alxuraan waaye sëriñ bee ko jàngal xam-xam yabal na ko ci ay barab mu sàkku fa waaye dellu siwaat wax nga léegi ci way maam maam Moussa Kay ne moom Moustapha naan àll kon mësta tàqalikoo sëriñ bi comme li sëriñ bi wax ni mooy ki takkoo woon ak moom nga xam ne mësuñoo tàkkalikoo ci seen saa mm-hmm. kooku mooy Cheikh Ibrahima Fati mm-hmm. daanaka mooy question bi ma ci bëggoon a teg digg mm-hmm. digganteem ak sëriñ Touba yan relation lañ amoon maanaam ci ci wàllu yàlla waaye it ci wàllu jëflante diggante Serigne akub taalibe ndax diggante mag ak rak lañ seqoon. wala diggante sëriñ akub taalibe lañ seqoon. sëñ Baara wax nga dëgg. Mhm. borom daaru moom boo koy xam da ngay wax ne moom xamut ku dul sëñ Tuubaa. wallaay ndeysaan. Mhm. loolu nag la ko ca def boo delloo ci ginnaaw tuuti da ngay gis ne way juróom wu jigéen soxna Fatou Issa. Mhm. moo ko ci xeertal. ndeysaan. ndax keroog ba sëñ Mbacke Mor Anta Sali génnee àdduna bañ koy toppatoo ba mu ne du ma du ma du ma dondu cerno du dondu. kaamil bi laa soxla ak cerno. ak cerno. waaw man yàlla doy ma te doyloo naa ko maam Thierno doy na ma man it doy naa ko. man ko waaw wenn xeetu kokki mbaawoo Mbacke. Mm. ñëw fii fi mën naa ma sàmbaaki dem Mbacke. wallaay ndeysaan <laughs> waaw waaw ndeysaan waaye soxna Faty Issa Diop. Mm-hmm. lam lam miiraas ma. Mm-hmm. moom ak sëñ Ahmadou Dame Faty. Mm-hmm. ak Aminta Mbacke. ak Faty Bintu. lépp da koo boolewaat joxaat addi sëñ Tuubaa. Eh, il est. moo moo borom daaru ci noonu mu ànde woon ak sëñ bi. seetal loolu ah. relation bi ñu àndoon nag bi nga wax. ndeysaan mooy da koo bëgg. Mm-hmm. bëgg goo xam ne. Mm-hmm. xel mënu ko mënu koo mënu koo takk. wallaay ndeysaan. te bëgg léeg-léeg moo koy wax day lu am doole. Mm-hmm. ndax sëñ bi. li ko dal lépp. Mm-hmm. fi mu jaar fépp tumuranke gi yëpp mm-hmm. daani li ixdaami nabi xubbu daatihi wallaay ndeysaan moo ko ko yóbbee bëgg yonente bi <laughs> alayhi salaatu wasalaam uh-huh. yun si fu aadi xubbuhu xubbal wara wallaay ndeysaan bëgg gi mu bëgg yonente bi salaatu wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan moo tax mënatuma bëgg mënatuma bëgg dara mm-hmm. moo tax bëgg am solo yi net li bëgg boobu gisee léeg-léeg ku ñuy wax majnuunu layla waaw ah, majnuunu layla waaw xays waaw ah, ndeysaan imru xays xam ne xays dafa bëgg layla ba bëgg ëpp dañoo wax ne benn bis da koo dégg masalan bu newoon fii mhm. moom xay si mu nekk fii Majnun Layla mhm. nekk fu mel ne Thiès mhm. mu koy toppi mu koy toppi waaw <laughs> ba mu demee ba romb jenn jàkk ñu julli mu jaar ci digg sàppe si gaañe téye ko biñ sëlmalee ne ko noo fekkee ñuy julli ngay jaar ci seen biir ngay jaar ci seen biir. <laughs> mun leen man gisuma leen woon layla rek laa gis. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan muy dem da leen a bàyyi dars bu am solo. ne leen mm. fi ma toll layla <laughs> <laughs> am solo am solo am solo. daa wax ne walaw annani astaghfirullaha kullama dhakartu kilam tuktab alayya dunub. wallaay wallaay ndeysaan doon saa su ma la rek ne astaghfirullah kon du ma am bakkaar. kon du doo jug doo jug ci sama xel. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. gi ëpp na mm-hmm. ba way juróom bu góor ànd ak moom dem màkk mm-hmm. ne ko dama bëgg bu ñu demee ba aj ba pare nga dem ca ridoy kaaba ga nga jàpp ca mm-hmm. ñaan yàlla nag mu mu sa xol bi lay laa ndax ni ko bëggee tax na mënatoo def dara uh-huh, uh-huh. nee na bi mu jàppee ci ridoy kaaba gi dañuy mm. allahumma zidni li lay la xubban la ilaha illallah <laughs> moom kay <laughs> borom daaru nag noonu la noonu la meloon ci sëriñ bi bëggee woon sëñ Touba wallaay ndeysaan wallaay am na lettre boo xam ne dañu ko ayyuhal mazbuhu bi xubbina wallaay de ayuhal madbuuhu bi xubbina wallaay ndeysaan yow gi nga xam ne dañ laa rend ci bëgg wallaay ndeysaan ah madbuuh madbuuh bi xubbina ma xam ne bëgg bëgg bu doon appaaka yow dañ la yow rendi la <laughs> la ilaha illallah kon noonu la bëgg Sëriñ Tuuba wallaay ndeysaan ànd ak moom mm-hmm. ci waxtu wu jafe-jafe ñu mm-hmm. ko bi di tarbiye ci alaaka bi ñu ànd mm-hmm. dafa dafa dafa metti ndax sëñ bi dañoo wax ne daawul jëfandikoo li li li li li ñuy toggee ci ci ci biir kër yi ci biir kër yeeg yooyu waaw nguur yi àdduna yi indi mm-hmm. soxna Faat Isa da ko daan defaral ay lu mel ne ay ay cere ay wogg mm-hmm. di ko jox mm-hmm. da koy jox maam cere ne ko yit ko ko ne ko bu demee boo demee la muy lekk dee ca lekk sëñ Moussa Ka day wax ne mësula juum ba tàbbi néeg maam Faati ngir bëgg a lekk baa mu naan laa yaati loolu sëñ dëkk ko dëkk ko tàqale ko moom uh-huh. kon noonu la àndeek moom wallaay ndeysaan ci di ko roy. Mm-hmm. di ko topp waxtu wu mm-hmm. nekk. Mm-hmm. ba sëñ bi nag. tàggat ruuxam ci. bëgg yàlla. mënatut a xam lu dul yàlla fatan lam yaax si amrallahi yow man. wallaay ndeysaan des si waaxat siraat. ndeysaan ah. am naaru gànnaar wax. wallaay ndeysaan ngir bëgg gum bëgg bëgg bëgg boroomam. tabaraka wa taala. kon noonu la àndee woon ak sëñ Tuubaa. ba niñ demee Baari Jolof. fekk nag sëñ bi formé na ko. Mhm. ba tàggat ko. Mhm. ba mat sëkk. Mhm. ci wàllu xel. ci wàllu xam-xam ci wàllu programme nag. mu bi muy dem ci. tukki bi nag. mu dénk ko mu dénk ko yoon wi. baarakallah antal la si yuusika. cheikhaka bilwara bi antir jamii annaasi bil fardi wan nafli. baarakallah kon. relation boobu ñu ànde mhm. mu tàggat ko mhm. ba xam ko mhm. moo tax bi muy dem mu jël loolu baarakallah baarakallah ci njëkk gi bi muy bi muy ak njëkk muy génn bi mu ko yónnee ndar rek taxawaay ba mu ca taxaw ak ñaw gam ca def waaw ndax bi bi inter kim kim kim jël muy interprété. li maam Thierno di wax. day wax lu gën a tàng li lu dul waxtaan. day wax uh-huh. ci kawam. maam Thierno bi mu seetloo ne. kii li muy wax waxu ko ko. Mm-hmm. dafa dafa changé dane nañ changé. Eh, interprète bi ñu woo keneen. Uh-huh. mu ñëw mu gis ne mi ngi wàcc. mu gis ne station baa ngi. waaw léegi nag ci la ko gouverneur kon dinaa bind tëlli garam. Mm-hmm. fa jaysh ba nekk fa. Mm-hmm. armée ba nekk uh-huh. ñu campé waaw ba ëllëg. bu ñëwee. ñu ñu ànd ak moom ñëw bu ñëwul nag fu fu ñu ko mën a fekk. 14 a fekk dañ koy jëli yow lay daa mel bi maam Thierno di ñibbi si sax la tombeek sëñ bi génn ci jàkka ji waaj na ba jekk jot ndigalul borom moom <laughs> ngir war a dem ndeysaan jot na jot na ndigalul borom ngir war a dem ndeysaan ba génn kon wallaay ndeysaan kon loolu la tax ak moom ci ci mm-hmm. ci ci ci ci ci fànn yëpp wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan loolu am na solo lool baarakallah loolu ko ki ñuy waxtaan yéen a ngi topp seen émission keppaaru mag ñi fii ci seen télé Rewmi TV mm-hmm. ngeen di ko topp yi ci seen rajo mi FM 97.5 seen Rewmi TV ngeen man koo am ci canal TNT bi 108 lay doon Euh, tey ñu ànd ak Serigne Modou Mbacke moom Baye Abbas moom borom Daarul Muxti ngir waxtaani maam borom Daarul Muxti ngir waajal nisfu saabaan bi nga xam ne ci lañ koy mhm. fàttaliko xam naa Serigne Modou am na solo lool xamal nga ñu bëgg gi nga xam ne borom Daarul Muxti bëgg na ko Serigne Touba mhm. waaye Serigne Touba it borom lañ ko fay mhm. ngir bëgg gi mu bëgg Yonent bi aleyhi salaatu wasalaam almaru nag maa man ahabba kenn ku ci nekk yàkk nga bëgg yéenay ànd fu mu jëm yóbbu yóbbaali la fa kon borom daaru ëllëg fu sëñ tubaa jëm rek fa la koy yóbbaale mm-hmm. ngir cofeel gi nga xam ne am na ko ci sëñ tubaa mm-hmm. waaye it euh, cofeel gi li ko lal mooy yàllay kese mm-hmm. yàllay kese ndax nit ki boo ko bëggee te yàlla tax boo ko bëggee ngir dara su boobaa loola mën naa am nga am ko ca waaye doo ca am yàlla waaye boo bëggee ngir yàlla danga cay am yàlla am ca lu dul yàlla te borom daarul muxti yi loolu la ko yàlla fayee ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul mooy bëgg gi mu bëgg Serigne Touba moo tax Serigne tubaa confiancé ko maanaam jox ko confiance waaye it bi mu noppee ci moom responsabilisé ko mhm. maanaam jox ko ay responsabilité yoo xam ne mhm. góor dëgg moo ko mën a moo ko mën a moo ko mën a yor ci jamono mhm. boobu ndax booba sëñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi booba borom Daaru Muxti ay atam bariwul bu dee egg na ci ñeent fukki at yaakaar naa fanweeri at mi ngoog booba kon <laughs> xam nga ni moos ku manqué ñeent fukki at nga jox ko responsabilité ab aw yoon wala boog bu ma ko mënee wax ab liggéey bu ni toll mm-hmm. ak risque yi ci nekk yëpp waaye fidwa ak dal ga ak wóolu gi mu wóolu yàlla mm-hmm. ak xolam namputal gi nga xam ne namputal na ko ci boroomam tabaraka wa taala xam ne lu dul yàlla rek yàllaa fi ne mm-hmm. loolu tax na loolu tax na moom borom boroom Daaru Muxti mu am fitu nangoo yenu yenu liggéey boobu ba Sëriñ Tuubaa dellu siwaat mu dellu mu mu mu delloowaat ko liggéey bi ni mu ko ni mu ko ko dénkee woon waaye it nag olof yi dañuy wax ni wala boog araab yi dañuy wax ne mm-hmm. euh, foo fekk góor gu jàmbaare jigéen ju baax nga ca wetam mm-hmm. borom daaru moxti li muy baax baax na lool mm-hmm. fidwaat njàmbaar ga foo ko takk romb na ko waaye way juróom soxna Faati Isa ku mat di ku mat di bàyyi xel ci yu bari bari bari ndax bi tubaab yi bëggee réeral suñu xel bind ay journal ne sëñ tubaab moom des na fa dootul dellu seeti yaakaar naa ne soxna Faati Isa mii ah, moom mii moo ñu ci génne moom moo moom moo moo leen dajale ne leen lam ma waxoon lu ma ma a wax dana gis naa ko mhm. te la ma waxoon dana ko def nee woon na ma moo may jullee te maa ngi nii faatoogum te nam ko waxee wane noonu la demee mhm. ndax Sëñ Tuubaa jugee na ci géej gi ñëw daaru Moxti mhm. ñëw nda daaru Marnaan ñëw ndaam ñëw euh, daaru salaam bañ ganale ko fa ba mu waat gànnaar jóge fa ba demaat ci yéen jolof door a woolu soxna Faati Isa mu ñëw soxna Faati Isa doora noppalu mu door ko faa denc kon kon it wax dëgg yàlla soxna soosu yi mm. am na rôle bu am solo am solo boo xam ne suyee na ko ci yoon yi parce que it gis nga nit ki mm. nit ki bu ñàkkee ki mu gën a bëgg maanaam ki mu gën a bëgg mm. boo ko séparé ak moom ku koy defal doomu la soxla dëgg la ku koy defal dong la soxla psychologiquement. kon soxna soosu. rôle bi nga xam ne suyee na ko ci yoon wi mooy bi sëñ bi demee ñu am jeex jaaxa ndax dana dellu si du dellu si. soxna si moo daan daan defal moo daan defal murid yi. moo daan dalal murid ba seenum xel dellu si waat xam ne yàgg yàgg sëñ Tuubaa dana dellu si. ndax lu mas a wax def na ko. kon yàlla nañu ko yàlla fayal moom maam Faati Isa ci liggéey bu rëy boobu nga xam ne liggéey na ko. xam naa dañuy njëkkante ak waxtu wi rek li ñu am waxtu dafa bariwul waaye ni mu bëggee woon sëñ tubaa relation bi mu am ak sëñ tubaa ba jëfal sëñ tubaa ba sëñ tubaa jox ko responsabilité yooyu mm-hmm. relation boobu la amoon ak ay bokkam mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom la bokkal Mamour Anta Sali waaye mm-hmm. seexi yoonu murid yi waaw incha allah da ngaa laal point bu am solo muy soxna Fatou Issa ni mu taxawee ba defal murid yëpp bañ delsiwaat moom dafa bëgg sëñ Touba waaye sëñ Touba defal na ko lool. Mhm. man ngaa wax ne defalu kenn. dëgg la tudde na ko doom. dëgg la dëgg la. soxna Diop mhm. Mbacke. Mhm, sëñ Mate Lamine Diop da ngeen day wax ne keroog bi ko sëñ bi dencee ba pare. bi ko sëñ bi dencee ba pare dafa taxaw daan ni li ñuy wax waajur tey laa ko ñàkk. la ilaha illallah. ndeysaan seetal loolu. ngir taxawaay bu mu bu mu amee woon ci moom. ndeysaan def ay gëstu fan yii ñu ne soxna soxna jaar bi mu demee ba toll ci waajtaay. dafa woo soxna Fatisa. ne ko dénk naa la Ahmadou dëgg la dëgg la moo tax soxna Faat Isa waxtu wu nekk li ñu nekk ca daara ji nga xam ne buux buuxloo ba day bari dañu wax ne mm-hmm. dafa mas a yor mm-hmm. wonk mm-hmm. fekk ko ci àll bi sëñ bi beru di jaamu yàlla bi mu yëgloo mu ko kooku mu ne ko man la soxna Faati mu ne ko lan la mu ne ko damaa xam ne yow lu buux buux loo di maye doo ko am doo ko am wallay ndeysaan ma ma waajal lay ndeysaan saa soo ci jubloo rek nga nga mën koo jëfandikoo waaw ndeysaan kon borom daaru alaaka bi nga wax moom sëñ bi da koo formé defal ko formation ba mu àgg. Mm-hmm. moo tax alaaka boobu rek la mën a am ak ñëpp. dëgg la alaaka bu rafet. Mm-hmm. ki ci ñi ci njëkki mooy. Mm-hmm. ñi bokkal suñu Mor Anta Sali. maam Thierno li mu woy bariwut. mën ngaa wax ne ñetti xasida la wala. waaw waaw bariwut kay bariwut. waaye. maam Mor da ko maam Thierno da woon. Mm-hmm. ma damaa fàtte mook moom ñaar lañ daan. Mm-hmm. mook sëñ mook sëñ daam fàtti Touré. waaw. ak sëñ Mbaye Yacine Oumy Dieng. Dieng mu ngoog. <laughs> sëñ daam fàtti Touré sëñ Mbaye Yacine Oumy. waaw bañ fa yendoo ba ngoon. <laughs> Uh-huh, uh-huh. bañ fa yendoo ba ngoon. Mm-hmm. li muy li li ay woyum li muy néew néew néew mhm. boo ko yëree da nga ci fekk woyum woy suñ woyu ñoom borom saam mhm. borom saam waaw mhm. kon loolu da ngay gis ne dëgg la ki ci magoon kon kooku alaaka boobu la boobu la amee woon ak moom boobu la amee woon ak boobu moom wér boo xam ne bi ñu dellusee ca ngan nga bi ñibbisi di hmm. leen sëñ bi laajtee bi ñu ko hmm. waxee woy yi sëñ bi da caa dolliwaat da cee dolliwaat ay woy da cee hmm. dolliwaat yeneen woy am naa woy yi waaw kay mu ngo am naa ko <laughs> kon da ngay gis ne alaaka <laughs> boobu la la amoon ak moom baarakallah topp mooy sëñ gaawaan sëñ gaawaan moom moom ab xaritam la woon lool dëgg la ñaabas nangoo naa ci moom mu ne mu ne moom da ko da da bëggoon sëñ gaawaan lool ndeysaan wax nañ wax nañ ne sax biñ ko ko tàggee maam Cerno dañ wax ne loo ko musaa wax rek muy xibaaru mbégte wala xibaaru soxna daan alhamdulilah. alhamdulilah. Uh-huh. ay wax nañ ne bi ñu ko waxee jógee suñu gaawaan xaw na koo xaw na koo. sogee na ko ah, ndeysaan xaw na koo jàpp tuuti. ndeysaan ndeysaan. kon alaaka boobu la la amoon ak moom. ndeysaan. Hmm. ak ndax da doon rakkam di xaritam. xaritam te dañoo soreewul. waaw dañoo soreewul dañoo <laughs> dañoo jàngandoo. na waar moom kay. moom kay doy na waar. daanaka niñ jiitoontee ci adduna waaw ni la ko borom gaawan jiitoo daanaka ci àjjana. mu ngoog daanaka ndeysaan. mu ngoog bu hmm. ci defee sëñ affaire rakkam. Hmm. moom tamxarit gu jot Daaru Muxti la daan la daan. fa la daan tamxarit si ndeysaan léegi ak njabootam dañuy. xoolal relation bu rafet boobu di gane si. Mhm. waaw. Mhm. sëñ Balla Corog sëñ Cheikh Corog moom. Mhm, ndeysaan noonu la demee. daanaka ñoom moom lañ xam. waaw moo leen <laughs> moo leen moo leen ne daan ñëw Daaru Muxti. ndeysaan ndeysaan sëñ maam Thierno Ibrahim. nee na mi ngi ay jamono sëñ Massamba bu Moussa ñëw ci maam Thierno. balaa agsi day day day àndal mbooloo mi àndal dañuy buub kees gi ba set. Ah? bu ñëwee bu toogee day day day da da da. ndeysaan da koy da koy bës rek. ay gore ay gore ay gore kon yooyu la amoon ak ñi mu bokkal. ñi mu bokkaloon mooy ñëw sëñ Mor Anta Sali ñëpp. Mm, mm, mm. ba ci li génn seex yi yoonu murid yi yoon bépp ñoom ñëpp la amee woon ak ñoom ndeysaan ñoom ñoom ñoom ñoom xalaaka yu dëgër ay xalaaka yu dëgër ndeysaan waaw ndeysaan ba ba sax li génn li génn li génn li génn li génn yoon wi li génn yoon wi ko ñuy wax Mhm. koo xam ne sëñ sëñ Ndari Kebe lañ koy wax. sëñ Ndari Kebe siiw na. waaw mhm. moom fi mu ne maam Thierno da ko ko da ko da ko fekk jamono jàpp ko lool. Mhm. ko dund bu baree baree bari. jëlilaat ko soxnaam. ba kooku noonu la jaari sax far moom moom moom moom moom. far fii di ji waaw ndeysaan ndeysaan jébbalu ci sëñ bi. am na solo am na solo sëñ Amari Ngoone Ndak. waaw waaw waaw maam Amari la noonu la xaritoo woon ak ak sëñ Xadi Touré. da daan ñëw daaru muxti ci maam Thierno daa mun bibliothèque bu mag ndeysaan dafa daan ñëw waxtu wu nekk di di di di mutaalaa foofu ndeysaan waaw waaw loolu bu ñu ko toppoon day day gudd day gudd lool <laughs> day gudd lool waaye xam naa li ëpp solo indi mhm. nañ ko mooy ñi mu bokkal mhm. ndax dañ ne buñ ne diw baax na dañ naan ndax bokk yaa ko wax mhm. ñi mu bokkal relation bi mu séq ak ñoom rek dafa doy man ki kiñ ma tuddee borom daaroo ko jàngal te doomi borom saam la sëñ daara xuréeja borom daaroo ko jàngal tuddee na borom daaru yi doom sëñ Thierno <laughs> kon loolu rek firnde la ci ne mm-hmm. relation bi nga xam ne amoon na ko njabootu Mamor Anta Sali mm-hmm. loolu firnde la ci mm-hmm. ndax borom daarul Muxti man ki ma tuddee sëñ Baara Xureeja borom daaroo ko jàngal 1912 bi sëñ Seexu sa faatoo la sëñ Tuubaa joxe ndigal ne nañ ko yut borom daarul Muxti mu dem ci borom daarul Muxti ginnaaw bi mu fa jógee la doolu di siwaat ci loxoy sëriñ bi tuddee na borom daaru yi doom muy Cheikh Ibrahima sëñ Maam Thierno doonoon na xalifa sëñ Baara Khourédia ci at 2005 ba 2008. jàpp 2010. Mm-hmm. kon loolu mooy relation bi nga xam ne am na ko mboolem jabootu Maam Mor Anta Sali man mën naa cee man mën naa cee joxe ay ah, firnde yu yu bëree bëree bëree bëree bëri noonu la amee woon relation mboolem seexi yoonu murid xam naa li ñu desee ci waxtu daa bëriwul waaye dañu njëkkanteeg waxtu bi rek ñëw ci ay injazaatam mm-hmm. ndax it ab kat la woon mm-hmm. sos na ay daara fu mel ne Daaru Muxti gii Sëñ Tuubaa ko jox mu sos ndigal mu sos ko 4 kilomètres 4 kilomètres carrés yi ak wàllu économie wàllu économie liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey na ko ci mhm. ba bu bi Sénégal nekkee ci kiris mhm. moom borom Daaru Muxti yi moom rek lañ xamoon ci ku denc ay sàq mhm. yoo xam ne mën na koo joxe ngir réew mi mën a jóge ci situation bi mu toll te daa mel ni état bi sax bëggoon na koo fayaat ginnaaw bi moom moo wax le da koo def ngir yàlla rek ak xeetali julli xeetali askan bi waaye doonu toon bor bu muy leble wàllu injaasaat yooyu loo ñu ci mën a indil ci tënk incha allah dañ koy tënk rek xam naa mhm, mhm. ndax moom day jàmbaar day mhm. jàmbaar lool moo tax ay injaasaatam day day day day day day yaatu day yaatu mel na wàllu mbay mi nga wax nga xam ne ci la gënoon a fës sëñ bi bi muy dem ci géej gi da koo bind ñaari bay dénk ko ko ne ko wa fi zarci ruuxul xalqi in kunta aaqila wa fiihi imaadu diini lil xurri wal abdi laa ilaaha illallah ida kunta lam tazraa fa anta mudallalun wa nafsuka mashgulun wa kasbuka batilun lu tax sëñ Tuubaa moom ay waxam soo ko déggee rek mu wuuteeg yeneen wax waaw laa ilaaha illallah maanaam maanaam maanaam sëñ Tuubaa an naxwu wal aruudu wal bayaanu lii sulibat wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan lii suli lii sulibat waaw wali bi te te te te waaw jaadaliyal wahaabu fi fi xaridi bi mm-hmm. muxdilil muflixi fi xaridi la ilaha illallah tabaraka wa taala moo ko barakallah moo ko ay woyam rek wallaay ndeysaan da koy dégg moo tax maam Cerno nag soobu woon àll bi toj ko mm-hmm. Mm-hmm. di fa liggéey jaamu yàlla uh-huh. ba mën na dimbale réew mi ci boppam ndax day am am na année boo xam ne moo joxe aw jiw ci mhm. Sénégal fi mu ne waaw <laughs> li wax bi ñu demee ba jamono neex tubaab bi di ko fay mhm. Mhm. mun leen kuy am ak a ñàkk du moom yàlla bi nga xam ne day am ba faw yàlla <laughs> bi nga xam ne day am ba faw maa indakum yanfadu wa maa inda llaahi baaq <laughs> foofu laa lebaloon prisonnier am na prisonnier yu nekkoon ci Louga am ay jamono dund ba jeex tubaab bi ñëw ne ko dama bëgg nga nga nga nga nga may prisonnier yi ab dund ndax fi mu ne kii jeex na ne ko te mënuñoo xaar. Mm-hmm. waaye wax nañ ne menn sàq moom ko may. Mm-hmm. keroog daanaka ci lañ dund ba ba ba ba année ba jeex. la ilaha illallah lim maye ci sàq ki fas ak i mbalaan may na ma am sàq fa kër Balla Badiane. ku wax loolu may sëñ Moussa. <laughs> ndeysaan lim maye ci fetal mënee su koo lim. Mm-hmm. lim maye ci fat fasit mënee su koo xam. la ilaha illallah kon moom. noonu la sàq yi way na ko de sëñ <laughs> tax way wii ma tiim. <laughs> Uh-huh. daa am ku ko doon woy eh. woy way way wu yéeme la ci maam Thierno mm. ni mu nekkee woon jàmbaar ni mu doon toje àll bi mm-hmm. dafa wax ne ba pare it ci mm. da koo tënk melal ko mm-hmm. ci bayit yu gàtt moo mm-hmm. wax fi tuuti ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom ju mm. nekk di ko roy ci moom ndax mel ne moom lu jafe la mooy bi Baye Samba Wade di jàng <laughs> moo bari diine bari ngor mhm. bari xam-xam te mun ta war mhm. xam la ko war wutewul ak kuñ yónni la la ilaha illallah uh-huh. kon baydu woowu rek da ngay gis ne mhm. dugg na ci wutewul ak kuñ yónni la maanaam wutewul ak yonent bi alayhi moo bari diine bari ngor bari xam-xam te mun ta war te mën ta war ñi mépp dogal xam la ko war wutewul ak la wallaay ndeysaan moom dégg naa melaw waaw daana wax ne buñ tegoon diine teg ngor ma jël ma jël diine wallaay ndax ngor day yóbbaale diine. ndax diine ju amul ngor. wallaay ndeysaan du du du diine diine ndeysaan waaw. Mm. kon li nga wax ne ñeent fukki kilomètres yu wér. Mm-hmm. la Thierno Toolo maa ko wër. dinaa mm-hmm. ko wax waxin wu wér. 40 waaw ma naan 4 waaw 40 kilomètres. waaw mm-hmm. bi muy tàmbali dafa wax ne kersaa ki teggin moo ko am temat wëllëre neel naa am du xeeb du naw moo bari jom ñeme te ñoŋ sell la. la ilaha illallah. Mhm. daal di wax ne daaroo ngi yokk aw fitam mhm. dara du tax mu raf bëtam wéetaay du wàññi ak ngëmam maam Cerno jënd jëmm la mhm. ñeent fukki kilomètres yu wér la Cerno tooloo maa ko wër dina ko wax waxin wu wér ngeen xam ne kooki kenn la la ba mu xëyee Mbàkke Kajoor daa romb jàpp romb las jaar ñumme ñàmmee waru fas te booba teewru gott la lii lépp ay turi dëkk la boo ay turi dëkk boo demee Daaru Muxti ma nga fa mu ne xoolal nga xol xool mbay zaman ke leen xëttale moo fi daan bajo bi moo ñàkkoon ki ñaan amul moroom kenn nga xool eh. ma nga ca wetu daaru waxab nga xool waaw mbay zaman ma nga ca daarul manaan bu suñu Cheikh Ban waaw diggante boobu nag la ne ke leen xëttale moo fi daan moo fi daan <laughs> ñaari diggante boo xoolee quarante quarante kilomètres quarante kilomètres carré la mm-hmm, mm-hmm. moo tax mu tojoon àll àll yooyu di fa di fa di fa bay daarul ma naan ak daarul mi nan am ñu teen ñëpp a ngi naan dootuñu naan ndoxi seyaan yaaraama hmm. Cheikh aw Balla jaarakallah moo gor lu njag hmm. moo gor lu njag ca tak sasin hmm. def lu buru ji la sasin sanc ba moo di al sasin taarix a ngi boobu dëgg la moo toj cinkóoli toj kaloom toj jatme génn fay ñaloom gaynde yewoon ca biir di bëw mu daq leen tey jatte la la dale bii bi ba jaxaw jàpp ngulaangul mm-hmm. di ba xaw mm-hmm. mu naa murit bu leen taxaw dem leen bu daa de windi la winde mooy fi fi fi pël dëkk winde waaw mm-hmm. waaw la dale ndangu ba ndoyoor jàpp moxoñ cernoo ko gor moo gor baraadi ak kuréel gor dër bu dër bu mokk la baarakallah at ya ca des la toj koso ak <laughs> limbi diwli ca koso uh-huh. teewul mu daal di kaso gaa yi di wër ba koobel koobel la uh-huh. def daaru salaam waaju ko dëkki am salaam uh-huh. amidoon jóob na nga dëkki am xam ne sa bàyyi sëdd na baarakallah yi daanaka <laughs> ay dëkk la sanc yëpp yoo xam ne moo wër 40 kilomètres kilomètres 40 kilomètres carré dëkk yi ñoo nekk ci biir lépp nag dafa doon liggéey di ko mmh. jox sëñ Tuuba addiya mmh. waxtu wu nekk mmh. ak di dimbale di dimbale di dimbale di dimbale askan wi waaw ni ni ni ni néew am na solo am na solo li duuf ci nag bi daa xajandoo wut ci cin bi xam naa dañ doon dañuy sóor li suur góor yi rek ndax fi mu ne daanaka waxtu yi xonj na juróomi minute rek a ñu desee waaye li am solo te am solo mooy génne nañ ko mooy ndekete borom Daaru Muxti mi ñuy waxtaane ci réew mi la dëkk ndax réew mi moom buñ koy séddoo ñaari cër yi moom mbàkke kokki bu génnee kenn ku ci nekk bu la neexee jël sa wàll waaye ñaar yi moom faaw day génn ba noppi waaye nag boroom xam-xam la ndax ki fi raw a ko jàngal mhm. mooy li ma lay wax reegi rek mooy ki nga xam ne bu bindee am bindam foo ko mën a teg ci àdduna bi mënta niroog mbindum keneen mhm, dëgg la maanaam mbindum Sëñ Tuubaa dafa neex a xàmme mhm. wallaahi la war a bil kaabati maanaam cafka bi mu am ku ko xamul xamoo ko xanaa nga ñàkk xam li nga ñàkk xam li mu bind waaye ay wayam soo ko déggee rek xam ne kii moo fi raw dëgg la Ah, nga ci woy woy boppam sax moom ci boppam da daan da daan da ko da ko daan yëngal wallaahi laazim da koy yëngal da koy yëngal isa katabtuhu tassa arshul baaqi wa sabahat malaayku tibaaqi koo xam ne boo bindee aras di yëngu malaayka yi jaay kooka wax dëgg yàlla am mbindam noonu rek la mën a demee kon ki fi raw moo ko jàngal mm-hmm. waaye it nag mu liggéeyal société bi liggéey boo xam ne ñëpp mën nañ ci teg seen bët. Mm-hmm. ndax it fii mu ne li coow lay bari bari bari bari bari bari bari bari gor. Mm-hmm. gor lu yo yomb de. dëgg la gor ab dëkk toj ab dëkk. ñeent fukki kilomètre carré nga gor ko te lépp nekk ci sa kilifteef. Mm-hmm. te boobaak léegi léegi tey mu jege téeméeri at. lu mu néew na juróom-ñett fukki at. ndax borom daaru borom daaru 43 la fi jóge wala 42. te boobaak léegi boo xoolee 42 léegi rek juróom-ñett fukki at la daanaka. kon at yam ko gar ci ginnaaw kon dëkk yoo xam ne mën na te 1912 mhm. nga xam ne kon euh, boobaak léegi téeméeri at ak fukk ak ñett la 2012 la am téeméeri léegi nag kon boo xoolee boobaak léegi liggéey bu toll noonu koo xam ne liggéey nga ko te boobu ba léegi mu nekk ci sa sàmm mu nekk ci biir sa kilifteef waaye te lan ca la nga nga gor ko ba tey moom lañ fay def mhm. loola it lu am solo am solo am solo la yàlla nañu ko yàlla fayal xam naa ñetti minutes ñu dese mhm. dañuy tënk rek ci ay am naka lañ cee mu ànd ak tàggoo bi insha allahu taala nisu saabaan bi lañ koy fàttaliku. Mhm. xam naa kon foofu la ñu tënkee rek nisu saabaan nisu saabaan bi. Mhm. lan moo ko waral. Mhm. mooy daje bi mu daje woon ak sëñ Tuubaa ak ci ay xilaaf xila xulafaam ci ñetti minute rek. su ko defee ñu daal di ñaan incha allahu taala. waaw jërëjëf waxtu wi dab nañu. <laughs> waaw kon waxtu wi dab nañu. ñi ngi soññaan ñëpp rek. li aju ci daaru Muxti ak. murit gi yëpp. ndax benn bayit wi rek woykat bi ne ko wa daaru ka daarul ilmi wa diini wa tuqaa wa baytuka baytul majdi wa zuhdi wal fadli laa ilaaha illa Allah daaru muxtin dëkkub dëkkub dëkkub dëkkub dëkkub loolu daarul daarul ayni wa tuqaa waaw dëkkub xam la dëkkub ragal yàlla la wa baytuka baytul majdi wa zuhdi wallaay ndeysaan sa kër mooy kërug tedd ngay ak teraanga wa zuhdi wal fadli wal fadli wallaay ndeysaan ak dëddu àdduna wallaay ndeysaan kon nisfu Chaabaan ji li ko waral hmm. mooy ginnaaw bi ko sëñ bi dénkee hmm. yoon yu ba dem ba mu dellusee hmm. bis biñ gisantee mm-hmm. na ci lettre boo xam ne sëñ bi bi ko maa ngi ci jàmm roo mm-hmm. xanaa namm gi ma leen namm mm-hmm. ginnaaw bi ñu bisee biñ biñ nammantee nag biñ ñu bisee gisee boobu ñu njëkk a gisee mbégteem ma mbégteem ma ca lawe moo waral ñuy fàttaliku gisee sëñ Touba ak borom daaru mooy nisfu Chaabaan ci lañ gise woon ah, muy fukki fan ak juróom fukki fan ak ci weeru Saabaan ci weeru ah. ci lañ gisee woon ci lañ gisee woon ginnaaw bi ñu ci ci ci ci géej gi mm-hmm. kon mm-hmm. bis boobu la ñuy fàttaliku mm-hmm. kon ñu ngi ciy woo ñëpp di ko bàyyi loo xel ñëpp ay xalifaam moom min moom 26 août 43 la fi jógee 1943 sëñ Modou Awa Balla sama turandoo moo fi njëkk a wuutu ndeysaan 43 ba 82 la ko wuutu moom it def ay ay ay ay ay ijaasaat yu am solo am solo moom koy waxtu wee ñu xoj waaye bëggoon nañ cee dikk wax dëgg yàlla noonu sëñ Abdul Koudous imam ba Zahid ba Waria. Mhm. Sufiyanke ba. Mhm. moom it 82 ba 2003. ndeysaan sëñ Abdou Khoudous. sëñ Abdou Khoudous waaw ndeysaan. Mhm. xam-xam bu mag boobu. ah ginnaaw sëñ Modou Awa Balla sëñ Modou Khoudous ko wutu. kon sëñ Cheikh Awa Balla jot a wutu borom nekkut xalifaam. ndeysaan ak sëñ Modou Habib xam nga moo topp sëñ Modou. sëñ Modou Awa waaw sëñ way juru bàyyi sëñ Cheikh Astou Faye mu ngoog waaw mm-hmm. Mm-hmm. ak sëñ Moustapha waaw sëñ Moustapha May mm-hmm. ginnaaw sëñ Abdou Khoudous 2003 bàyyi Cheikh Khady bàyyi Cheikh Khady ndeysaan waaw bàyyi Cheikh Khady moo ko wuutu moom it dafa ay defaat ay réalisation yu am solo mooy ki liggéey néegub ah, yàlla ci milliard dëkk ci néegub ñax sottiwaat xar kanamu daaru ma lool <laughs> uh-huh, uh-huh. ginnaawam sëñ Abbas 2016 ba 2020 moom it Baye Abbas waaw ndeysaan moom it waaw waaw moom it foofu la jaar <laughs> liggéey bu rëy bi mu liggéey Daaru Muxti wax dëgg yàlla yàggul dara rek mhm. wax dëgg yàlla <laughs> ginnaaw bi tey jii nag la fi mhm. sëñ Mahamadoul Bachir sëñ Mahamadoul Bachir ñu koy ñaan mu yàgg fi loolu téwér moo nekk ab xali ab xali moom mooy nekk ab xali allahumma amiin sant yàlla it nag mook tàggoo bi ànd rek xam naa waaw <laughs> ndax Daaru Muxti la suñ Tuubaa tudde wasmuha Daarul Muxti la bind ca lettre ba mu jox sëñ Amsatu Jaxate mhm. te ñi yëngutu ci wàllu administration. ñoom hmm. ñëpp dañ daan wax daaru musti daaru musti biig nag la président jël décret hmm. ne administration yëpp léegi nañuy bind daarul mawti daarul mawti waaw wala yekk daaru musti waaye daaru mawti nañu wax daaru musti daaru mawti léegi moom daaru musti nag kenn daa xamul mooy lan sax nag wax dëgg musti xam dëgg kenn xamu ko kenn xamu ko daarul mawti la wax <laughs> uh-huh. kon loolu it ñi ngi sant bu baax a baax uh-huh. waaw hmm. tàggoo bi ñi ngi tàggoo ñëpp uh-huh. bi di la nuyuwaat jërëjëf jërëjëf di am mbégte di la ziar jërëjëf di nuyu waa réew mi TV. Mm-hmm. Mm-hmm. borom kër gi ak mm-hmm. mboolem ñi fiy liggéey ñëpp. di ñaan yàlla mi nga xam ne. dara tawu ko. yàlla def fi barke. amiin ak yokkute. amiin ak mboolem ni ngeen ko bëggee rek. amiin barke Seydou Khadim allahumma amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi. waaleykum salaam wa moom Serigne Abbas moom maam borom Darou moom lañ àndaloon tey ci seen émission keppaaru mag ñi. ngeen doon ko topp ci seen télé Rewmi TV man koo topp ci canal 108 man koo topp ci Rewmi FM 97.5 seen mbokk sëñ Baara Mbàkke ngeen ci àndaloon Alxaaji Malick ak mboolem ñi mu àndaloon wàllu xarala gi ñoo doon jàppandal suñuy kàddu ba ngeen man ñoo dégg waaye man ñoo seetaan ci àdduna bi yëpp euh, lu ci jub yàlla la lu ci mata matadik doomu aadama la waaye in uridu ila l islaaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh Ahmad Sulaiman بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمسدت طيب نفسي كي أميل لها واعرضت ميل قلبي للهديات وخاطبتني بما يدعو لغذبتها